jeex jafe-jafe soxal dem ak dikk bi nara a nekk lu ñuy fàttaliku bus rapide transit tey jilee amal na phase u essai ak benn weer kon ay test soxal performance ak endurance namm nañ ko amal naka noonu ay séance su formation. ci lu toll ci téeméer ak juróom fukki bus téeméer ak ñaar fukk ak benn yi nar nañ leen jotandi ci phase bu njëkk bi mu di nag lu mucc ayub loo xamante ne méngoo na ak jamono. Euh, projet bi tamit dina indi euh, junni emploi Euh, junni xëy lay indi ñu jagleel ko ndaw yi. ginnaaw nag bu muy amal mbégte ngir dalal jumtuwaay bu bees bi gouverneur bu région bu ndakaaru moom di xam ne jumtuwaay yépp jël nañ ko ngir dàq képp koo xamante ne ci bërëb yooyee lañ defoon jaayukaay. may fàttali ni projet bu mu ci tolloo defoon na recensement ñépp ñi nga xam ni ñi ngi woon ci yoon bi. évalué woon nañu également li nga xam ni moom lañu ñu naroon a perte loolu lépp macha projet bi euh, def na ko ci xaalis mu fay ko ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon pour ñu libérer en prise bi waaye gis nañ ni bi ñu paree loolu ba commencé liggéey bi ba muy waajee pare am na ñeneen ñu nga xam ni wala xëy sax c'est les mêmes ñi ngi ñëwaat di occuper les emprises ñooñu nag occasion la pour ma wax leen ni nañu libérer emprise bi ci nu mu gën a sedde conseil exécutif bu ëmb transport urbain durable ci kàddug directeur général am ñàkkul nag di woo ndaw yi ñu jëfandikoo bu baax jéego yi nga xamante ne yépp nguuru Sénégal def na ko fi ngir gën a yombal dem ak dikk bi askanu Sénégal xool itam lu berte bi nar fi indi yëpp toll ci ñeent fukki kilomètre réseau assainissement bu yees leeral yoon yi naka noonu taaral bi nga xamante def na